جاد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفوا أحد ناجاني الله المكرم الصمد سناديك به dem nañ ci jàkk ji ba noppi ñu ngi nii toog Serigne Fallou Dieng gisuma ko woon al maa ngi lay siyaar Serigne Fallou Dieng mi nga xamante ne tubaarkàlla Serigne Baaraay maamam sëñ Tuubaa di maamam moom tamit bu ñëwee ànd ak Waly Ballago fa tabaarakallaahu kon jotaay bi couleur na kon du nu gàtt du nu gudd du nu guddal dañuy gàttal dañ doon présenté rek kon ngeen teewlu ñu jublu ci kàddu yi ndax lépp mën a yem kon Modou bisimilah. ko mottali. waxoon naa sànq ci jàkka ji ni. waxoon na ni sànq ci jàkka ji ne. sëriñ Fallou Mbacke nee na. sëñ Fallou Mbacke waa turandoo sëñ Fallou Dieng mii. ku bëgg a denc soxna. ku bëgg a denc soxna. nekk góor nekk góor. ñetti jikko nga yore. ñetti jikko rek nga yor. jigéen ñi ñuy denc. jigéen ñi ñuy denc. ñaari jikko ñaari jikko. góor day jéggale. gë góor day jéggale de. day jëlele. day jëlele. day joxe day joxe. jigéen noppeeg toog. jigéen noppeeg toog. góor am na ñaari sikk. góor am na ñaari sikk. jigéen am na ñaari sikk. jigéen am na ñaari sikk. góor lan mooy ñaari sikkam. góor lan mooy ñaari sikkam. wax ju bari ak nay. wax ju bari nay nañ ci yàlla musal. ñooy faral di ànd nag. ñooy faral di ànd nag. ku la gën a bari wax. ku la gën a moo la gën a ñàkk njëriñ. moo la a jigéen ñaari sikk la am. jigéen ñaari sikk rek la am. ñaawaay ak dëgër bopp. ñaawaay ak dëgër bopp. loolu rek a nekk si jigéen. su ko defee. ndaw si. ndaw si. ñoo ngi koy dénk. ñoo ngi koy dénk. fa mu jëm. fa mu jëm. Serigne Touba nee na. ah Serigne Touba nee na. jigéen lu mu jaamu jaamu yàlla. mu jaamu yàlla. bu ko borom këram gërëmul ah na ngeen déglu loolu de jigéen lu mu jaamu jaamu yàlla lu ko borom këram gërëmul du dem àjjana ah tubarkalla sëñ Tuba nee na nee na sëñ Tuba nee na doom lu mu jaamu jaamu yàlla lu mu jaamu jaamu yàlla amul gërëmal ñaari waajuram du dem àjjana na fay dem Cheikhul Khadim nee na Cheikhul Khadim nee na julit ba làmmiñ ba ñaaw lu mu jaamu jaamu yàlla lu mu jaamu jaamu yàlla du dem àjjana àjjana ku yëw fay dem nara fay dem nanu bàyyi xel ci doom yi nanu fonk seen i waajur ku ñuy wax alxama ku ñuy wax alxama ne bu ngeen demee na ngeen ko jéem sa baatu seede yi téere yi tere nañu ku ne sukuraat nga naa ko tuddal yàlla dañu bëgg yow nga tudd yàlla su ko mënee mu roy la saaba yi dem saaba yi dem saaba yi naan laa ilaha illallah muhammad rasulillah waa ji mënu koo wax ñu dellu ca Moustapha nabee jógal boppam ca tànkam yi tedd ya néew tiim waaw ja naa na ndeyam ak baayam déggal ka laaj ndeyam ak baayam oh, déggal ka laaj ndeyam ak baayam sëñ Tuubaa nee na Cheikhul Khadim nee na rasulaay ku sik sàkk moo gën muxtaari ibil mursali laa ilaaha illallaah Abdou kooku lii bi axtilaa u darajaati rusuli asamaan asamaan juróom ñaar ñu ngi qad fal wasilati wal mudabbo laa أحمدنا الماء ما مسا ولي سوى نساق ما نساق سن بامبا نينا لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا لملكن درجة المختار بالمرسل باختلاف درجات الرسل كل نبي والرسول saa xamal na saa jërëjëf moom mii doon way moog Amary Badiane ñoo bokk ndey ak baay ki ñu may soxna alaaji góor a Badiane seen baay waane wàllu bu tedd ba ajab fan ñi ngay seen ndey baay continué la police maa fekk la bëgg Seexul Xadim nee na Seexul Xadim nee na ku sikki sàkk njool màkkaa gën ku sikki sàkk ne njool màkkaa gën ëllëg doo dugg àjjana moom bi moom nag daa xamoon yonent bi sëñ Tuubaa ne njool màkka sëñ géntuma ko dama jàkkaarloog moom xam naa na mu tolloon mhm. ndeysaan laa ilaaha illallaah samba samba yaa ngi dégg loolo nabi nee na guddul lool sëñ Tuubaa nee na gàttul tam ba def guñ réyul ba ne fa tax sewul ruuj biir ba dafa tuuti dënn ba dafa yaatu teere daa jot baat ba daa gudd mu am ay ndombay baat gémmiñ gi daa yaat mu fang am na sàkkar yàlla kër gi dafa nooy daawul gees lu mu xool kanam la mu gisee gisaaw